dina dindi ballonnement. du ma waxat sa diggante ak Aziz parce que loolu wax ci mu laaj bu yàqu la mais sa diggante ak doomu aadama yi nin la def ba tey jii macha allah Balla fu mu dugg lu waaye jàpp bàyyi ko ngir cofeel gu mu am ci yow lan lay def ci yaw waaw sant yàlla rek parce que doomu adama yi daf ma leen seen biir xol suñu borom moom boole ñoom jàpp naa ne nit moo xam lépp lu mun a am ci àdduna rek doomu aadama yi da ko bokkal. te moog doomu aadama yi benn lañ parce que yàlla mooy sàkkee noonu nit ñoo jàmm laa sëkk ak ñoom ak salaam mbëggeel nag kenn xamul yàlla suñu borom rek ko xam fu muy jóge si nit da ngay sopp nit wala ngay bëgg nit da nga koy delloo cër bi rek respecté ko te xam ne gënoo ko gënu la mais suñu borom moo jagleel ne tey dafa war a bëgg doomu aadama te du xam na loo koy bëggee loolu nag waruñ cee yëg suñu bopp waruñ cee gis suñu bopp ñu jàpp ne rek ne ah suñu borom la moo tax nag saa su ne dañ leen di bëgge di leen ñaanal jàmm di ñëpp jàmm bis bi nga xamante ne nag mooy bis bi nga xamante ne bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ñëpp jàmm yàlla na ñëpp mucc yàlla na ñëpp am nekk ci ay tolof tolof yàlla suñu borom génnee leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal Aziz nag parce que mënu ma cee bay ñàkk wax kon li nga war a ndax lu mel nii chaque année nga koy lii la nit ñi di gis kon présenté wu dafa leer mu ngi def lu baax mais li muy def ci suuf mu kooku kon jaadu na wala nga ñaanu ko yàlla yàlla sàmm ko sàmm njabootam ndax nit bu am njëriñ la ci société bi na ay mbokkam rawatina ay xaritam rawatina doomu aadama yi rawatina ñi nga xamante ne mu ngi leen di dimbali ñaanal ko sax yàlla dala ciy sant ndax kuy def lu baax boo ko ñaanee yàlla sant la kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla sàmm sàmm njabootam yàlla ful ko at bu nekk yàlla na koy gën a mën ay da ko ci ay maamam donn ko ci papam ba mu ci moom yàlla na ko ay doomi doomam di ko doon ci barke mu mel bi nga naan Aziz boobu lii lépp ñëwu ko fi bi nga ànd ak Aziz di ko bàyyoo loolu lépp amu ko fi tey ku ñëw ci Aziz yow la fekk si tey seen relation lan moo ko conservé ba heure bi waaye yàgg na Aziz nee naa la moom njëkk a fayal salle musculation fekk sa kasoor ba salle boobu Yékini mu ngi nekk roi des arènes te boobu man salle boobu lay entraîné te boobu man mbëru 300000 la ak 200000 kon nga xam ne loolu may ànd ak bàyyi bu mbëri di dem di dugg super man Mercedes laa yëg ànd ak bàyyi bëre ba pare li ma gañe du xaj sax si oto bi yenn yi day xaj oto bi lee du xaj donc ñuy ànd ba yoonu yàlla tey loolu sant yàlla la te dara lu ñaaw mosu fi am dara lu ñagas mënu fi am te ñu ñaan yàlla loolu yàlla suñu borom moo ñu ko sàmmale ba nga xamante ne nañu sant yàlla rek loolu kenn ku nekk rek war nga sàmm sa diggante ak doomu aadama ngeen duroo ay jikko ci partage ci ku ngeen tën a dimbali ko parce que li ne ci Aziz moo ne ci yow bari na looy def te bëggoon nit ñi di ko wax parce que yàllaa ma tiim bari na fu may jaar ñu ne ma diw dimbali na ko boo dee dik yooyu Aziz di ko def ngeen bokk ay jikko tey lan lay def waaw nee nañ booy donn donn doy dëgër booy doon tamit na nga lu baax wala booy roy na nga roy parce que doomu bu nekk rek da nga koy xooj sa bopp Fadel mu ngi def lu baax man de bu fekkee bëgg naa lu baax naa wax Fadel ma di ko topp lépp lu muy def ci lu baax rek ma di topp ci tànkam di ko def parce que loolu la a ñun géejuwaay lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ xam nañ ñu métti xam nañ ñu neex xam nañ ñëpp bu ñu yàlla jagleel aussi tamit yàlla suturaal nañu ñu koy partagé xam ne ñu nañu xam nañ ko parce que dund nañ ko mais li jaaxal ñëpp mooy Balla à dordal bu nekkul ci làmb da nga naan mi est ce que koo weccoo Balla ci biir làmb beneen Balla tey Balla bu toog di lekk laaxu la ci def day mel ni day jaaxal ni ñu ko lan la waaw mais xam nga door ko làmb dafa am lu xew mooy ñun ay doomu adama lañ bu ñu toogee ak nit ñi ay nit lañu boo ñu fekkee ci ay nit nag da nga naan déer kii du mbër mais mag bu passé nag ñu dugg ci làmb da nga naan ah kii mbër la donc ñaari facettes yooyu mënuñu ko bay ñàkk yor loolu mooy àdduna loolu mooy sport. mais noo géré ñaar image yooyu Balla tey bu nekkul ci làmb du la sax xool bu nekkee ci làmb tey boo ko jox ñëwee mu luqi la. waa parce que liggéey bee ko laaj. ah da ngay luqiwaatee. waaw liggéey bi moo ko laaj ci làmb. Mhm. mais na wax dëgg yàlla ku ñu fekk ak ñi ak doomu aadama yi. kaf reetaan nekkaat ci leneen la parce que tamit aussi loolu mooy àdduna loolu mooy àdduna. d'accord li des mooy du ma bàyyi te laajuma ko. sa rak sa doom sa xarit sa jarbaat Ama Baldé nga ja nga jalaat nga jëflante ki mu doon jëflanteel tey tey boo doon moytuloo Ama Baldé tey ci bis boobu lan nga koy moytuloo ci Modou noo non Ama Baldé amuma lan la ma koy moytuloo ci Modou Lo. sa xam nga danger yi ne ci Lo. non xam naa Ama xam naa ko baax xam naa ne mbër la champion la Modou Lo mbër la champion la xam naa ne Ama amuma lan la ma koy moytuloo ci Modou Lo la mu doon xam na ko la ko yàlla defal xam na ko yàlla na ko suñu borom may ndam. Balla yow dina gis même bu amee Modou Lo sax ni ngay préparé bokkul ak ñeneen parce que xam nga wexaayu Modou Lo di moom maanaam maanaam dangereux nga ne doo moytu ama non ay doon keer champion la ay doon keer lañ ko tudd kan moom ay doon keer laa koy wax moom bu ma ay doon keer ak ñu ak man ay doon keer mooy amul lenn lu ma lijjanti ci mm-hmm. anglais mm-hmm. amul lenn lu ma war a faale mm-hmm. ci li mu war a nekk lay nekk ci li mu war a def lay def ay magam ay xaritam rawatina Jules Baldé nekk champion nekk mbër jaar fu ne ci làmb kon Ama Baldé am na encadrement bu doy am na saf bu doy man aw ma lenn moo koy moytaloo ci Modou Lo dara lu dul ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam. Mm. ndam bu sedd guy. Mm-hmm. waaw ñenn ñi def analyse nag jàpp ne Ama Baldé peut-être dese naa pare euh, ab tagul combat bi suñ ko bëree du baax ci moom yow en tant que sportif fréquenté Ama def ci moom lu bari tey lan nga dolli Ama am nga yaakaar ci wax jooju wala dangu woo. waaw xam nga léegi làmb. c'est-à-dire que am na ñoo xam ne dañuy wax pour promotion la. Fada bii de moo njëkk a wax loolu. waaw am na ñoo Fada moo ni moo njëkk a wax ni Ama Baldé mi daal dese na ak yooyu wax. non non yéen ñaar ay ay ay copain ngeen. non non ay copain ngeen ñaar ay copain ngeen. kon ni ngeen ko defee ngeen lii mooy lii mooy àdduna. mais nit koo xamante ne day xëy yor bureau chaque jour mu xëy di dem liggéey moo xam lu nekk ci bureau moo xam dossier bi rek laa gëm du rek la. voilà làmb dafa yor bureau nag. bàyyi waaw même tudd rek. bureau bu ko ay bureau làmb nag. bureau boo may tudd naa ñu ah maa ngi lay déglu. laissez-moi terminer s'il te plaît. d'accord maa eh, eh, vas-y vas mais ma xam nga booy xëy di liggéey sa saak ngay gàddu yow sootu dem sa mbër bi day xëy di gàddu dem dinya baa mu dem géej baa mu dem musculation ngoon jot mu dem contact bi ay millions dafa neex man léeg bu ma gisee ñu naan mbër bi entraîné wala mbër bi pareegul ay ree daf may jàpp parce que mbër bu ñàkkoon jom du fay ko ay millions mbër bu amulum fulla am fayda ñemewul lu muy def non fi gars yem nga yem ay trois cent mille quatre cent mille ñu lay fay ay centaine de millions nga non sa fit sax yow loo am fit fit fit mooy la nga toog benn place sa ngor mooy la nga toog sa benn place xoolal yow ñu lay support ak ñu lay ñaan ah, ak ñu lay jàppale ñii booy bëre ñii bëgg a rey seen bopp loolu waxin la rek xëy na peut-être gars yi dañuy wax pour xumbal pour neexal pour ñaaxaat mbëri rek parce que làmb boobu xëy na yi bëgg nañ mu neex mais ñu koy wax ñëpp man xam naa leen ku ci mel ni Bour Gueweul xam naa ko. moom bëgg Ama Baldé la. non ku bëgg ñëpp la yéen ñëpp yem bëggoo leen kenn mais ñëpp ngeen yemale parce que loolu mooy sport amoo droit faral kenn mais nag ki nga bëgg yow yaa xam yàlla moo xam parce que yàlla suñu borom sax day bëgg ndax bëgg na Rasulullah du dëgg yàlla suñu borom rasulullaay rek lañ gën a bëgg ci àdduna kon donc yal na leen yàlla dafal jàmm dafa leen salaam dafa leen jàmm toog mais Balla euh, rinkum Ama Baldé ak Modou Lo bëgg nga lool seen rinkum mais àdduna ko bëgg nga naa ma ba bëgg na lool mais seen rinkum xam nga runkum daje ah, ah, runkum daje ci la ba ah. waaw mais bàyyi ñu ndékk man ndékkeeku ma mais ñaareel xew na de Balla <laughs> du ci wax mais piis la ñu ngi lay fay ba alhamdulilah am na Serigne Cheikh Omar rabbi allah eh, alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadana li hada allah ñi leen di nuyu di leen ziar bokk jël bokk talib yëpp di ndokkeel ci bis bu di mawlid nabi moo lañ di ci ziare umma islam bi yëpp mu nekk bis boo xamee ni bis bu màgg la ci jullit yëpp bis bu màgg la ci bokk yëpp euh, buñ nee bokk nag waxuñu bokk ndey ak baay waxuñu bokk deret comme ni ko alxuraan waxee rek innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun loolu mooy bokk euh, di ko ndokkeel mboolem tariqat yépp euh, nekkoon bis boo xamee nag Seydi Xaaji Malick Si moo la dundal ba nga xamee ni euh, bokki Touba yi yëpp démb lañ fi juge mu mel ne Serigne Abdou Samad mu Serigne Soy bu Ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul démb la fi jugee ñu koy ndokkal ñëpp di ji ziyaare ñëpp di bis boo xamee nag euh, kenn ku ne mën nga ko ndokkal sa bopp waaye rawatina borom biss bi nga xam ne daana ko màggal nga xamante ne si ne moom tagge woon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nekk moom Seydi Hadji Malick Sy ba tax na ko ne ko yow kat akmal wara xalqan wa xuluqan zahara wal mislu qattu lam yura walan yura fi ziyami nee ko yow day yaa gën a mat mboolem mi def yëpp yaa ci gën a mat ci bind ak ci jikko yàlla dootul bind ku mel ne yow dootuñu gis waaye ku mel ne yow tamit dootul am fii ci àddina mooy laye bi yàlla wax ci alquran ne wa innaka la ala xuliqin azim moom yàlla da ko tag ci jikko tag ko ci lépp waaye alquran musul wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla sàllalu ko munul am yaa ayyuha rasul yaa ayyuha nabi loolu rek la ko yàlla doon wax ndax rus gi ak kañ ko ak xam mooy kan moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di bis boo xamee ne euh, mawliduhu muazzamun mubarakun muxtaramun taxdimuhu yanqasimu ala sawi taqaddumi bis la boo xamante ne si ne bis bu màgg la bis buñ barkeel la bis la boo xamante ne si tamit képp koo xamante ne si ne def nga ci dërëm wala luy sa doole wuy leneen yàlla subhanahu wa taala dana la ko fulal ba ëllëg yowmal qiyaama day mel ne xunay ni ak ku mel ne ku demoon xare badar euh, mu mel nag bis la boo xamante ne si kenn ku nekk mën nga kaa ndokkeel sa euh, euh, sa bopp te Seydi Hadji Malick Sy nekkoon ku jàmbaar nekkoon koo xamante ne ak dunam gépp lu metti la ci dund ay tis ci dund dem na ba way ne ala ya rasulallahi kulli wa fa inni fi hasa zamani xaribum fuaadin xaaratin fuaadin ridan tafi wa qad saada min riqi sama rahibum nee na day bis bu xaru daga noonu man ma xaru man Seydi Hadji Malick Sy bis bu xaru daga noonu rek ma xaru ñu ne tax mu ni ndax nattu nattu bu jeex borom bi subhanahu wa taala tegal beneen waaye nag xaru moom dafa nekk loo xamee ne dafa araam ci islam mu mel ni moom Seydi Hadji Malick Sy yàgg naa kañ ndaw ñu nekk ci dundal diine ba dem na ba wax ci ay bay ne ala ya bani ala zaman daawtukum li ayaa diin bil ulumi la ajibu ey yéen ndaw ñi dem leen ngeen wuti xam-xam dem leen ngeen dundali diine ndax kat diine moom nga mën a wattu diine moom nga mën a sàmm ba yàlla subhanahu wa taala nangu la waaye ba yàlla subhanahu wa taala wuyu la ala kulli matbuin dalatin attaabiin bima huwa ajad la lil jaitoi wa taalimuhu fardun alayhi la yadimuhu wala lighatin alarimu yowma liqaayi nee na gannaaw bu loolu jàllee li njëkk nag mooy nga xam say fard xam say farata jullit bu ne da ko war a xam waaye rawatina al mukallaf kon bis bii dafa nekk bis boo xamante ne si ne des cee war di waaroo lépp luñ jàpp ba julli jot ñu bàyyi ko dem julli ci lépp luñ jàpp ba jaamu yàlla jot nañ ko bàyyi def ndax kat moom mi nga ñoom ñoom ñoom ñi nga ne si ne moom la dundal lii moo taxoon ñu koy def euh, bés nag moom dafa amoon nag euh, mbooleem tariqa yëpp jàmm moo tax bés bi mu nekkee fee ci njarne wala rem wa sangam bu baax ba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul seet si ko bi ko seet see ba ngoon jot mu koy gunge di ko gunge ñëw bay waaj a gunge ko sori. Seydi Hadji Malick Sy daal di dëpp bi mu dëppee tëgguñ ci ay fan sëñ Basiiru Mbakke moo ko nettali ci Minanul Baaqil Qadiim nee na Cheikh am sëñ Seydi Hadji Malick Sy daal yónnee ab téere bi mu ko yónnee téere nag dañu boole ay bayit bayit yu am solo ne ko adiyati muxjibha tilaabu mahabbatin yaa ayuha alxubaabu adaama rabbuna lana qabla alwisaal wal takfina shurra allati haada alwisaal yow sama sang bi yow sama soppe bi addiye jii day ma lay yónnee na nga xamee ne leen rek laa ci namm muy sama diggante ak yow mu nekk relation boo xam ne fii la tàmbalee jëm ëllëg yawmal qiyaama waaye nekk relation bu dëgër waaye nekk comme ab got nga ne kenn du ci mën dara kon yaakaar naa moom yàgg naa topp tarixa yi Cheikh Ahmadou Bamba tontu ko ne ko jazaakumu xayral jazal wahaabu wa fii safal widaadi laa tartaabu fa kayfa laa wal mustafa al mujaabu imaamuna wal xitla laa naabu ni yàlla na la yàlla fa yiw yiw yi gën ci yiw yi yow Seydi Hadji Malick Sy waaye day bul am lenn loo sikki sàkka te xamee ne sama diggante ak yow day fii lay tàmbalee jëm ba ëllëg yawmal qiyaama kenn mënu ci dara waaw sama diggante yow sax ndaka lay mën a yàqoo ndax ñoo bokk génn kilifa muy kan imaamuna wal xit la naabu mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku foofu la nekkoon waroon na fii aw fas di jëm njaasaan fas wi mu waroon daa di sëq ci gerte ak jàmbur xob lekk ko Seydi Hadji Malick ne man de du ma waral fas wi ndax bu ma ko waree day damay bàkkaaru ndax fas yu ma war lekk na alal jàmbur ca tool la toog ba borom ñëw mu soog a jaar aw fasam war ko moom dund na bu dundam jeex mos naan soow ndax na soow mii fi ñu koy mën naa am ca jur gam jigéen masa ruur moom Seydi si góor gu tedd gi di borom xam yàlla yàlla sàmm di suñu xarit di suñu lépp di suñu wayjur mu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy jërëjëf incha allah rabbi ñu ngi ñaanal ñëpp bokk yéen ñi fi teew yëpp ñu ngi ñaanal ndax di ñaanal Univers Info yal na yàlla gën a yokkal seen lii yëpp ba li ngeen ciy daggu yëpp suñu borom gën ko yokku di ñaanal mboolem euh, umma bi yëpp di ñaanal xalifa général sëñ Mansour Mansour yàlla gën koo yokku wér gën koo may kattan di ñaanal baax suñu soppe sunu xarit muy Asiyax Seydi Mouhamadil Moustapha Sy Al Maktoum yàlla yàggal ko fi loolu te wér ñu ngi sant Abdou Aziz Ndiaye gàmmu gi wax dëgg yàlla dara manquewul ñu ngi joxe nag yu bari gëléem yu bari ginaar yu bari tra berneel ñëpp berneel doomu aadama yëpp Abdou Aziz ku baax la yal na am téeméeraat ku baax la boobu ñëwee lépp yëpp teranga bu ne andi na ko fi wax dëgg yàlla yóbbu na ci néeg yoo xam ne saal yoo xam ne dañ ko clim suñu dara manquewul suñu ndox manquewul dara manquewul lépp ñu ngi sant Abdou Aziz yàlla na fi yàgg man Malick Diop Mbaye Bakar dëkk arrondissement Méane commune Méane ah, di liggéey ak Cheikh Sall Cheikh Sall monsieur le maire Méane moom àndal ñoom ñaar ñoom ñoo liggéey